Calme maa lay nuyu di la siyaar. waaw maa lay nuyu di la siyaar xam nga di nuyu presse bi yëpp di nuyu gars yi teew fi yëpp xam di ñaan yàlla yàlla génn fi mbas bi waaw. Eumeu Sène euh, Boy Niang woote bi mu woote noo ko gisee. non woote bu woote Boy Niang dafa woote wooteel ñëpp waa axlu lamb sax moo woote mais Boy Niang jëmm moo fi nekk rek mais waa axlu lamb yëpp ñoo woote parce que dañoo dañ koo nommé ambassadeur de la non violence comme moo war a sos ñu nekk si ginnaawam ñu ñëw. mbër yu mag yi ñoom Eumeu Sène ñoom Papa ñoom si yëpp gaa yëpp teew kon loolu loolu dafa nekk loo xamante ne initiative bu rafet la mu nekk loo xamante ne comme nekk dañ ko nekkul loo xamante ne gars yi caméra yi dañoo war a jël affaire yi nekk dama bëgg kilifa yi dugg si YouTube bi seetaan li gars yi wax seetaan télé yi xam li Boy Niang wax si en français ak si wolof yëpp ñu déglu ko jëfel ñu ko ndax loolu la ñu bëgg. gis nga wax na jox ay naataangoom Eumeu seen wax na Baye Mandione wax na sita wax na yan wax moo la ci gën a marqué ak ak lan nga ci gën a. non li ma si gën a wax parce que euh, Boy Niang wax na ba waxee xol Siteu wax na ba waxee xol ba gédd ñibbi kon nga xam ne ñun waa ahlu lamb am nañ lu ñu metti man li ma gën a marqué euh, Eumeu Sène lu mu gën a leeral si diggante moo Lac de Guiers comprendre magu ak dëgër ñëw dogal ko loolu rek damoon moom tuuti ma ñibbi sax mooy côté boobu parce que affaire boobu demoon daf ma déstabiliser woon amu seen maag moom ñu rapport ke amuñu ko kii mais affaire bi daf ma touché woon loo xamante ne mooy te warul am si diggante ñaari mbër parce que ñun ñoom la ñuy roy comprendre si dañuy roy si Lac de Guiers di roy si kii Eumeu Sène comme tey loolu bu amee rek dañuy jaaxal comme comme yàlla def na lii rek comme loolu bëgg naa daal mu gën a jaamu ji gën see sax quoi waaw. Eumeu Sène Junior mu waaw amul maa koy fay xam nga li ma la wax sàng rek na waaj combat bi ñu yomb de prix dip laa koy def sama waa dëkk fu ñu jóg dafa sori man talu ma nekk fii léwétoog moom jëmale suba yàlla xam na loolu man li may wax nii noonu laa koy jëfee ama seen signor taxu ma nekk fii ay léwétoo fii jëmale sama waa dëkk dañuy dugg saret dugg gaal ah dugg oto door aksi agsi Dakar fii agsi fii ay ñaata ay heure ay trois heures ma war a ngemb dem estade dem foofu di léwétoo ñu war a àgg dëkk ba ban heure non non talu ma loolu balaa vingt une heures ñu àgg village bilaa walaay taluma loolu le bu dee bu dee bu dee loolu lay xaar ay taw wi léwétoo non non na xaar prix bib bi prix bib baa ngay dem.